fii nag da ngeen gis ne li ñu dugal ci son Sam Fall lu bëri na trop mais ñu fii la ñuy duwee quoi sikar moom danga ne yàlla fu ma fekk Sam Fall mën naa fa fanaan mën naa fa yendu Sam Fall dafa may root mooy mooy duyaat sama ndaay bu mu fees yàlla rek foofu fu ngeen di gis nag mooy tant yi ñu defoon ci buntu musée bi pour mun fa euh, wécceeku photo Seexul Xadim yi Euh, Baye Fall yi nga gis nag ñoo def si kër neex macha allah ay intellectuel ay boromi daraja ñoo nekkoon di sanfar sanfar bu yéeme yéeme yéeme bu doy bu neex lool dama togg di cons wallaay ba jàpp leer. Euh, après dem nañ ci lieu bi gars yi doon jaay photo yi barkeelu euh, barkeelu ci photo yi comme ñëpp donte na jënd ñu photo bu un million waaye jënd nañ photo bu toll suñu doole aussi amoon na ay entrepreneur mur yi fa indiwoon ay café jàppatuma tur café bi euh, dinaa ko fii ci kaw vidéo bi logo bi